asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki waa réew mi mbokki waa àddina ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara bu baax di leen balu xaq te di leen balaq eh, di defaat waxtaan wii rek ngir dellu ci loo xam ne yaakaar naa bi mu tàmbalee ba léegi ñu ngi ciy def ay waxtaan di ci def ay gëstu di ci def ay leeral ngir euh, jéem a xam doxinu jamono fu mu toll ak ndax li am dëgg la walla ay pexe la rekk euh, ba li ci gën a fés muy feebar bi ñuy wax coronavirus yaakaar naa bi mu tàmbalee ci sénégalais yi di ci jëkk a def live waxtaan ci euh, ci laa bokk ci booba wax naa ne Euh, dinañu fe installer lu ñuy wax psychose maanaam fexe ba tiital nit ñi euh, tiitaange joo xam ne bu dee ci wàllu jëmm nii rek euh, ñi xam ni doo doo doomu aadama bindoo xam nañu ne saa bu jëmmam tiitee sax ni muy doxee dëgg-dëgg ci wàllu biir ak ni mu mën a organiser woo ba xeex ak doomu jàngoro sax dafay jaxasoo moo tax tiit baaxul Euh, li ci toppit mooy naka lañuy ñuy tiitalee nit ci am réew mooy li tubaab yi di wax privation des libertés maanaam dañuy fexe ba yow euh, sa dem ak sa dikk dootul jàppandi euh, ñenn ñi seeni liggéey dinañu ko ñàkk ñi ci des seeni njaboot dinañu nekk ak ñoom barab yoo xam ne dootuñu mën a gise ba jaaxle ba dafay dafay yàgg li nga xam ne mooy ñu ci jëkk a jël comme ay ay ay dogal mooy li ñuy wax confinement bi mu tàmbalee euh, chiffres yi d'abord boobu jamono dara reyatul ci kaw suuf lu dul coronavirus est-ce que corona moo doon rey nit ñi wala reyul nit ñi euh, loolu ñoom ñoo koy xam en tout cas ñi nga xam ne dëgg-dëgg am nañu ay ay ay renseignements yu leer te suivre nañ ko bu baax mooy li ngay jëkk a seetlu mooy euh, ki nga xam ne moom ba ba ñuy déclarer corona moo nekkoon la meilleur virologue au monde lépp lu jëm ci wàllu virus moo ci man pandémie yi fi jot a am yépp nit ñi dañ ko ci woo ay réew yu mag ay Amérique yépp soxla ci ndimbalam mu jàppale leen te la mu tëral mooy la mujju saafara jàngaro ba muy docteur Raoult ci lañu ko weddee ci lañu waxee ni xamul dara ci la ñu ne ab chartal charlatan la guru la euh, ñi nga xam ne tamit dañ doon wax ngir dalal nit ñi ak euh, teg leen ci yoon woo xam ne dinañu mën a mucc ñu ci bari euh, gis ngeen niñ leen doon traité ci li ñuy wax les médias dominants duñ ci sax am accès kon am na lu am discours politique yi nga xam ne it mooy yi njiiti réew yi jëkk a def dafa jëm ñoom ñépp ci benn kàddu bu ñuy wax naan nous allons travailler à l'avènement de nouvel ordre mondial wax ne àddina bi léegi ni muy doxee euh, dafa mel ni dafa laaj ñu taxawal ko mooy li ñuy wax état nation yi euh, seen nekk amatul solo wala yàgg na yàgg goo xam ne faw ñu changer système bi installé gouvernance mondiale loolu lépp kon am na ñaari wàll mooy bu jëkk bi mooy wàllu tawat si ci boppam nga xam ne ñi ci gën a xarañ ci wàllu paj ci domaine boobu euh, tubaab yi gis nañ ni leen traité marginaliser leen ñi ci des nga xam ne ñu ngi ci biir di appliquer yenn protocole yi niñ leen doon waxee ne bàyyi leen ko baaxul te pourtant moo doon def ay résultats yu baax ñi ci des mooy ñi nga xam ne ils dans le système mooy ñi nga xam ne euh, industrie pharmaceutique bi mi ngi leen doon verser xaalis bu bari bi ci des mooy wàllu politique bi wàllu politique bi it mooy li ñuy wax rek avènement nouvel ordre mondial mooy mooy moom mooy jublu bi gis nañu tamit économie àddina bi ni muy ni muy màbbee loolu itam euh, inflation bi am prix yu yokk yi gis nañu ko waaye itam gis nañu ni banque yi ñu ngi daanu ak li ñuy wax tamit monnaie matérielle maanaam xaalis boo xam da nga koy téye nii ci sa loxo aw këyit wala euh, peset léegi dañuy wax ne dañuy dématérialiser la mone mooy li ñuy wax crypto monnaie loolu lépp nag sujet la yoo xam ne ak lu ñuy wax euh, de the great reset euh, te euh, Schwab jiite ko nga xam ne dañu ne àddina bi dañ koy dañ koy remettre à zéro pour indiwaat doxalin bu bees kon ku wax lii rek wax la ca des dem nañu ba benn moment ñoom ci seen biir jaaxle bi ñuy joxe ay chiffres yu garaaw di wax ne France quatre cent personnes dee na fa Italie six cent Espagne sept cent nangam euh, boobu ñoom ñi ngi wax ne nañu bàyyi xel Afrique ndax Afrique ñu ngi séentu tawat si laal diggante juróomi téeméeri million ba milliard kon bu leen laalee xëy na ñoom ñi ngi séentu lu mat juróomi téeméeri million gën gaa néew ci ñoo xam ne bu leen tawat si laalee faagaagal leen euh, ñu seetlu ne réew yi nga xam ne mooy li ñuy wax ay pays protestant muy Scandinavie ak yeneen dëkk yi ñooñu tawat si sonalu leen ndax confiné wuñu presque boo xoolee confinement bi dëgg-dëgg euh, France Italie Espagne Portugal Grèce ñoo ko gën a appliqué seen économie fi mu ne nii moo gën a màbb ci euh, koom-koomi réewi Europe yi jafe-jafe yi it foofu la ëppee Angleterre am na waaye boo xoolee Suède Norvège Danemark dëkk yooyu euh, tawat si ak coow li wu fa noonu am na nag problème religieux diggante catholicisme ak protestantisme ak judaïsme ak l'islam mais yooyu yëpp dafay gudd kenn mënu koo tënk ci benn vidéo ndax xeex la rek boo xam ne diggante xisbullah ak xisbu shaytaan noo ko mën a déggee ak foo ko mën a déggee ak nu mën a tàmbalee itam foofu la jóge foofu la jëm Sénégal sunu borom bi subhaanahu wa taala wala Afrique sax ci ndimbalam def tawat si demeewu fi noonu ci ni ko tubaab yi doon séentoo ak niñ ko doon yaakaare ndax ñoom moyen yi ñu am ñun amuñu ko te pourtant Euh, tawat si defu fi dara daanaka boo xoolee reyu fi lu toll ni benn gaal bu 480 personnes dee ci Sénégal ba ñëpp di ko naqarlu te te gis nga ni euh, jël nañ fi ay dogal jël fi ay mesures yoo xam ne dem na ba révolter population yi parce que ñun ni ñuy dundee nga xam ne bis bu set la ñuy lijjanti sunu dépense ak yenn charges yi nga xam ne war nañu war na borom kër gu ne. loolu àndul ak confinement àndul ak confiscation de liberté état bi def na ko nit ñi xëccoo ak moom ñu jàpp fi ay nit dóor toroxal euh, def yoo xam ne daal euh, yellul ci àq ak yelleefu doomu aadama waaye nag terewul nit ñi xam ne lii moom mënta wéy mënta dem bi ñu ko defee ba yàlla def ñu bàyyi nit ñi wax ne kenn ku nekk sa responsabilité bopp ci nga ne euh, boo xoolee li ñuy wax mesure barrière fii nit ñi sax faalewuñu ko masque yi ci yenn institution yu officielles yi lañ lay obligé nga di ko takk ak di ci sonal chauffeur yeeg te masque yi man ki ma jàpp ne mooy le meilleur ba léegi muy docteur Raoult nee na moom xamu ci dara affaire politique la euh, li ci des mooy bañ a saafonte beeg tëj jàkka yeeg jumaa yi ñu fi dogaloon yépp finalement Euh, jurul dara lu am fayda alors màggal nañu fi euh, gàmm nañu fi murid yi màggal nañu lenn ci sunu bokki tiijaan yi ak murid yi àndaat nañu gàmm ci ay dëkk yu bari yu mel ni Touba ak Medina Baye ak dakaar ak fépp foo xam ne nit ñi baaxoo nañu di fa gàmmoo période d'incubation yi ñuy wax naan da ngay toog fukki fan ak ñeent wala juróom xool ba xam ndax ay kaa am na nit ñi toog nañu ko dara jotu leen résultat yi gis nga maanaam màggalu Touba mënul am zéro cas euh, gàmmu Touba ak dëkk yu bari yoo xam ne murid yi dañ fay gàmmoo dara xew fa euh, Medina Baye am nañu ñoom ñaar walla ñetti dëj yoo xam ne lu jiitu gàmmu gi loolu xew na fa te dara ñu xëy kaa yi di yokku ni nit ñi doon séentoo ne dañuy dem ba zéro cas ak trois quatre sous traitement euh, Sénégal ñëpp tàccu kontaan déedéet ñu xëy rek ñuy def vingt cas quarante quatre vingt cent chiffres yi ñu ngi yokku te dara xewu fi c'est politique man j'assume ce que je dara lu mën a yokku chiffres yi ci wàllu tawat si amul. mais ñoom ñi nga xam ne am nañu ay renseignements ñun tamit ni ñu amee yooyu renseignements la ñu xamee ne actuellement ay mesures sanitaires dinañ ko jël ay dogal ci deux mille vingt et un mille vingt ñi jàpp ne ak bu bari problème la jàpp sax na ne ñu ngi yàkkamti deux mille vingt et pour nof laay am nañu xam ne deux mille vingt et un mooy ëpp problème parce que ci la ñuy commencé di wax. ñi nga xam ne dañoo confisqué woon seeni liberté ci deux mille vingt ak seen économie ak seen ak ak seen yelleef nan la ñuy def ba man léegi ngay jot lenn ci sa bopp ak sa ak ak sa yelleef mooy li wàllu wàllu tukki jéggi frontières yeeg yooyu dinañu accepter obligatoirement ay vaccination parce que euh, ñu bëri tiitaanga ji jàpp na leen toll nañu foo xam ne loo leen wax ne ko buñ la ko sexalee wala ñu pikiir la ko nga mën a moom sa bopp dama ko dikk ndax di nga immuniser ci tawat si pendant six mois wala un an peut-être euh, loolu dinañu ko nangu ñiy bañit ak ñi nga xam ne dañuy bañloo nit ñi nañu xaar ne état yi dinañu xeex ak ñoom dinañu leen bundu xataal dinañu leen indil ay jafe-jafe parce que politique la boo xam ne mi ngi sukkandiku ci nouvelle ordre mondial bi te ñoom li ñu wax de mooy ñun juróom-ñaari milliards yu teg lañu ci aw nit ci kaw suuf si suuf si xat na nit ñi bari nañu euh, li nga xam ne mooy ressources naturelles yi tollootul noonu kon nañu seet politique bu ñu wàññee nit ñi nee nañu deux fii juróom at bu ñu bàyyee mbir yi mu demee noonu juróom-ñeenti la ñuy doon kon nañu fexe ba juróomi milliards yi moom bu mënta ñàkkit ñu am ko te maintenir ko kon am na ñaari milliardu nit yoo xam ne fi mu toll nii seen bakkan a ngi ci xottu gerte juróomi milliards yi fiy des il faut góor jigéen yi ak lesbiennes yi ak transsexuels yi ak ñi ci des ñépp ñu mën leen a may liberté ñu développé wu épanouiru ngir yàlla ngir nit ñi xirtalu ci loolu parce que loolu lépp luy gàllankoor yokk xeet wi la ak jurante bi donc moo tax ñu ngi koy imposer état yi yépp ñu ngi koy légaliser ci état yi yépp ci àddina bi ñi ci des nga xam ne dañuy lànk ci sax ci góor war a ànd ak jigéen jigéen war a ànd ak góor fawu dinañu def ci seen yaram loo xam ne dina ñu am jafe-jafe ci jur te seetlu nag dafa am solo ñaar fukki at ci ginnaaw wala fukki at ak juróom ci ginnaaw dégg ngeen fi politique de dénatalisation politique ou réduction des naissances espacement des naissances programme élargi de vaccination bi ñu doxalee programme boobu ba fii ñu toll nii ñun ci sunu wàllu génération ñi nga xam ne ñu ngi ci diggante ñaar fukki at ba ñeent fukki at couple yi ci am jafe-jafe pour am benn doom wala ñaar ñépp teg nañ ci seen bët xëy na dañ ko dul seetlu di ko wax waaye fi ne jur doom mi ngi bëgg a doon lu jafe nit ki dina ci àgg ci faju àgg ci ci ci ci ñaan lu ci ay sëriñ lu ne mu daj ko ci bokkul ak ni ñu mayee nit ñi liberté ci ñuy njaaloo di mooy yàlla ci anam yu ne nga xam ne créé nañu ay pilule du jour pilule du lendemain te pilule yi li ci ñi day dem ba day rupture ci pharmacie yi nit ñi ñu ngi jaxasoo di jël ay pilule waaye effet secondaire u yooyu bokku na ci mu dagg sa njurukaay ilaa yawmil abad dootoo am doom ni mu koy defee nag ay effet secondaire la yoo xam day nit ñi ay kyste ak ay nangam ak lu ne ñu koy faju parce que tout simplement lu bari mi ngi jaar ci comprimé yi ñu jëfandikoo ak ci programme vaccination yooyu fi amoon lii nag boo gisee ñu koy wax dañoo bëgg kilifa diine yi vigilant kilifa aada yi vigilant nitu nguur gi awma ci ñoom yaakaar awma yaakaar ci président de la république wala ministre de l'intérieur taxaw opposé wu ci politique internationale bii nga xam ne mooy li fi nar a am très franchement am na ak tiit am naa ak jaaxle ci ne fii ak weer di ngeen dégg ci réew mi yoo xam ne dina leen wóor ne lii bàyyeekoowul ci doxalinu feebar bi ci Sénégal ne bu doon doxalinu feebar bi ci Sénégal ci la bàyyeekoo kon nit ku nekk danga nga mën a doxi say soxla num la soobee waaye Euh, sur base test yoo xam ne xamuñu nu ñu koy defee chiffres yi ñu ngi yokku na nit ñi nag kenn ku ne namm sa xel xalaat lan moo waral lii ak fu ñu jëm nit ñi it nañu xam ne delluwaat ci àddina bu jëkk ba ce qu'on appellera l'ancien monde xeex ngir jot sa àq ak sa yelleef moo koy def am na peuple yoo xam ne dinañu révolté wu bientôt parce que dinañu comprendre ne dañu leen di confisquer seen liberté au nom d'une pseudo pandémie mais tamit dañoo bëgg instaurer un nouvel ordre mondiale boo xam ne def na ay jéego ci après la première guerre mondiale société des nations après la deuxième guerre mondiale nations unies acte trois après cette troisième guerre mondiale fausse pandémie ñu def li ñuy wax une gouvernance mondiale te gouvernance mondiale boobu nag damay fàttali toujours ne Jacques Attali dane xalaatam ak géntam mooy ñu yóbbu ko Jérusalem aar yahuud yi juróom benn million ñoo fa dëkk fukki million ak juróom lañu ci àddina bi yépp te njiiti àddina yu mag yi financier yi nga xam ne ñoo leen di digtal li ñuy def mooy yahuud yooyu te ñoom fa ñu ne amul sécurité ci ñoom ndax juróom benn million lañu fa te juróomi téeméer ñetti téeméer ak juróom fukki million ci ay jullit ñoo leen wër rawatina dawlatul islam bi ñuy wax Iran kon nag na nit ñi xam ne lii am na yu bari yu ci laxasu yoo xam ne du balaa du mbirum yàlla du mbirum tawat ñu moytu itam sàgganee jaamu yàlla ak dikku tudd ak sàgganee sunuy tariqa ndax des na tuuti mooy li fiy des loo xam ne dinañu ko xàmmee ci suñu aada ak sunu diine ba mën ci langaamu ndax ni ñu ko bindee ci téere yu bari boo demee ci Utopia bu Thomas More boo demee ci la Nouvelle Atlantide boo demee ci le Nouveau Ciné ñoom ñépp ñiy junju gouvernance mondiale dañuy wax ne ay peuple yu déraciné yu métissé ay nit yoo xam ne amuñu benn référence ñuy jaamu un dieu unique issu de l'œcuménisme ak yu bari yoo xam ne mandarga yi ñu ngi koy tàmbalee gis bokk na ci mandarga yooyu dialogue interreligieux bi ñuy instauré à travers des think tank di wax ni dañoo war a seet islam et liberté islam et sexualité islam ak nangam ak nangam te jublu bi yépp mooy fexe ba def ci xelu jullit yi loo xam ne dina wàññi seen tawxiid wala dina ko gàkkal ba ñu mën a nangu mbiru góor jigéen nangu mbir yu bari yoo xam ne musiba lay jur biir ak biti musiba lay indi tey musiba lay indi ëllëg kon nag nañu waajal sunu bopp te takkaat sunuy ndigg yeesal sunuy laxasaay rawatina kilifa diine yi nag kilifa diine yi xam ne ñi ngi jëme si ci ñoom programme yoo xam ne bu agsee ba ñu nungu ko buñ ko nanguloo mbooloo mi fii ak fukki ak gën gaa bari dinañu toog di gis nit ñi ñuy dee yoo xam ne duñu xam ci lan la jóge ñenn ñi di tële ci wàllu jaxasoo ñenn ñi di tële ci njur ak leneen ak leneen ak leneen awma kóolute ci ñoom awma yaakaar ci ñoom sama ruux ñemewu leen sama tawxiid ñemewu leen sama dara ñemewu leen wóoluwuma it njiitu Afrique yi ci wàllu gouvernement amu ci kenn koo xam ne kenn kenn kenn koo xam ne war naa mën sukkandiku ci diine wala ci aada taxaw ne am na lool du ma nangu ñu def ko sama waa réew bien au contraire dañ ciy ànd parce que léegi financement Union européenne ak organisme yu baree baree bari ak ONG yi ak fondation yi képp koo xam ne politique bi ñuy instauré pour góor jigéen yi ak loi yi ratifié woo ko nangu woo ko seen xaalis moom dootoo ko foon ñeex loolu mooy li ci nekk ñu bëgg avertir nit ñi déjà ñu xam ne am na lu nuy waajal waaye ñoom it nañu waajal seen bopp te xam ne mbir yi fa mu jëm mën naa naqari mën naa ñagas mën naa ñàng waaye nag boroom xel moom buñ ko xesee ba junju rek la ca des dana doy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu